ay ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb rek ñu ngi leen di nuyu gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Père Birahim mu ngi toog euh, li ñu war a waxtaan ci làmb bari na gannaaw loolu dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi Père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf may rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli maa ngi nuyu mbokki internet yi nga xam ne yëpp eh, ñu ngi safoo site bi tudd wasaare hmm. di ko seetaan muy seen sit wax dëgg yàlla ñun ñëpp di ñu nit ñu di leen bëggee ngeen ñu di bëggee hmm. may nuyu Abdou sama doom di nuyu Bachir di nuyu Adama Kaggu eh, Ousin ñëpp ak ñoom benn xale yi ne ci site bi yëpp maa ngi nuy ñëpp daal di leen sa di di kontaan lool ci tey ñu toogati tamit. Mm-hmm. ah war a waxtaanee li ñu fi gis ci làmb yeeg loolu. Mm-hmm. may préparé xaar question yi xam naa léeg nga xàcc fu xaw a ah. yoo xam ne léeg-léeg mu yor xeewu mag xàcc waaye rek man damaa mën a moytu. xeer ah, dëgg la dëgg la ku la mag ëpp lay sagar. dëgg la waaw noonu la mooy tuwaar kàddu yi rafet suñu toogaay di ñaan mm-hmm. yàlla. ñuy seetaan it suñu kàddu yàlla na fekk leen ci jàmm. lépp lu fi wax it yàlla na njëriñu ñëpp ñuy seetaan. waaw di ñaan mbas mi fi nekk it yal na fi jóg hmm. yàlla na ko daal na jóg ci réewu jullit yeeg kàddu yi ñëpp daal ci àddina bi daal yal na fi jóg hmm. waaw ba ñëpp ku ne delluwaat say activité hmm. ku nekk it say activité yàlla na def mu doxal gën koo doxal daal jërëjëf euh, Père keroog làmb ji amoon arène nationale gis nañ la plateau ITV nga nekkoon fa consultant mais Père dama gën a kontaan ci yow bi ma la seetaanee ndeke toog di seetaan Père Birahim sax moo dàq bay def ak moom émission ndax bi may seetaan ay njariñ kese laa ci gis surtout li nga doon wax ci làmb ji lépp moom laa mujjee gis ci làmb keroog plateau bi nu nu nu mu demee woon daa mel ni neex na ci yow de. di ko sant yàlla rek. xam nga mm-hmm. dafa am loo xam ne nii bu la ko yàlla defalee. Uh-huh. Euh, bu ko bu ko damoo. dëgg la Ndiaye. mooy wane wu nii laa toll wane maa yëpp xam-xam. Mm-hmm. li ma xam kenn xamu ko wala fi ma am kenn ko déedéet loolu boo ko defee yaa ngi wàññi sa bopp. dëgg la. ab jullit su bëggee yàlla may ko ba yëkkati ko mu gën a kanam. Mhm. day wàcc boppam. dëgg la xam ñu mu dox mu tombe loolu numéro suñu borom la. dëgg la eh, bi ma toogee man wuy xëcciwu ma benn télé. Mhm. wutiwu ma benn télé dëgg la ci télé rajo laa ci télé kii laay waxee. dëgg la interview laa wax ñu may dégg wutiwu ma fenn. damaa toog ñu woo ma. damaa ah, man dañoo bëggoon nga defal ñu direct ma ne ah loolu de mën naa nekk waaye de. nan lay demee ñu waxtaan ba d' accord. Mhm. bi ñu waxtaanee ba d' accord it ñu defal ma teraanga bu rëy wax dëgg yàlla. dëgg la ndeysaan teraanga bu rëy lañ ma defal. et puis ma toog ak Malick Thiadou maa nuyu de passage. Mhm. muy xale bu yaru xale bu teey. nga xam ne xam euh, bu ñu toogee da lay jox seen. parce que àddina euh, euh, baa ji uh-huh. gis nga nit. boo toogee moom. Mm-hmm. surtout affaire plateau yi. Mm-hmm. kenn ku nekk dafa am lu mu am. dëgg la parce man mii am na lu mu am te yow amuloo ko. dëgg la am nga lu am te man aw ko. dëgg la Ndiaye kon kenn ku ne bu joxee moroom cëram rek plateau bi day neex. dëgg la waaw loolu rek la. dëgg la mooy yéenante jàmm laabirante kenn bu ne bañ a soxoree mm-hmm. waaw lu mu xamul ci bëri laaj ma lu ma xam wax lu ma xam parce que moom it mën naa jànd ci moom. noonu daal mooy plateau bi neexoon na trop. parce que ba Amérique Euh, Pape Kane ñu ma doon woo ak ñoom xaw soog ñëpp di ma woo naan ma yow ñu ñuy seetaan ba Touba ñoom Mbaye Ndoye ñoom ñëpp di ma woo naa ma père yow la ñuy seetaan. Ah. waaw waaw ñoom Modou Kane bari na daal. ñoo xam ne ñoom Birame Ndoye ku ne di ma woo naa ma yow la ñuy seetaan. ndeysaan loolu mbégte la ci man. ndeysaan waaw. Euh, mu mel ni sénégalais yi sax wane nañ cofeel bi ñu am ci yow. Mm. ndax moment bi ñu lay seetaan maa ngi dégg suñu papa Malick Thiandoum naan bàyyi leen woote bi ngeen di woo père Birahim parce que mu ngi ci direct bi muy mel ni kon cofeel bi réew mi am ci yow rawatina sénégalais yi ak mën a nekk ci réew mi mm. bëgg-bëgg boobu la cofeel bi. waaw sant yàlla ko sante ko yàlla sant ko samay waajur rek. Mm-hmm. parce que léegi rek bi may ñëw jël taxi di ñëw nii. Mm-hmm. bi ma xawee réer nii ki am na ku ma la xamee ci làmb ji de yow la kan doo père ah, xaw li am ma bi. Mm-hmm. kooku ma doo père Birahim ma ne ko ah kay. waaye taximaan bi ne ma mais père yow xam nga li la yàlla defal ma ne ko xam naa koy mu ne ma gis nga nit ñi fi ñu la teg ak cër bi ñu la jox. ma ne ko waaw ma sante ko yàlla rek. waaw doomu aadama lu la yàlla defal rek sa àddina rek na nga ko sant borom bi rek. Mm-hmm. xam ne nit ëpp na la daraja te amu ko nit ëpp na la teraanga te amu ko kon yow lu la yàlla defal rek gëmul yàlla ne rek ne yàlla la baaxee nii rek. Mm-hmm. bu dee champion am na ñu ma gën doon champion fop mm-hmm. am na ñoo xam ne carrière bi ñu def defuma sax genn wàllam. la waaw kon tey jii su ma fooyee làmb ba ñëw toog tey jii yàlla làmb di ma teral ba nëgë ni. ma sant ko yàlla sant am naa oto ba tey. Ah. façon oto bu ne am naa. Eh, instant yi damaa bëgg nga amaat oto yu mujjee. génn ci réew mi ndax liggéey nga ci réew mi loo xamante ni war ngaa mën a am oto bu mujj ci mucc ayib ci ci réew mi. waaw waaw waaye nag xam nga man dama daan war oto di dawal. Ah. mais bi ma demee jëm mag ni sama vision demeetul noonu. Hmm. dégg nga amoon problème mu cataracte opéré indi ay problème xam nga àddina lu ne day def. dëgg la dama la Ndiaye. waaw maa maa ngi sant yàlla nag parce que maa ngi yóbbu sama bopp di jëmal sama bopp. alhamdulilah waaw kon loolu yëpp sant yàlla. Mm-hmm. bon mais dama amoon sama oto Sonatel teranga bu ne am naa fa. ndeysaan boîte bu mag laa liggéey retraité fa am fa teranga bu ne. Mm-hmm. sama Mitsubishi bi ma mujj a jaay dama sama benn goro laa ko jox. dëgg la waaye loolu nga wax it teraanga jooma yéene la rek. Uh-huh. bu boobaa it wut benn xale boo xam ne bii weer wut fu ma jëm mu yóbbu ma loolu sag la. loolu nag moo ma gënal te père. Ah, am na loo xam ne xam naa ni doo ko nangu waaye bëgg naa koo def. mooy bari na ñoo xamante ne dañ may woo di ma laaj numéro père Birahim. te ñi la ñi may woo di di ma laaj numéro père Birahim li ma gën a bëgg. mooy numéro bi niñ ma koy laajee ñuy yëkkati teraanga ju réy di ko defal père Birahim ndax per ku la teral man la teral ah. waxoo ko nag waaye man maa man maa xalaat ni loolu lu war a mën a nekk la léegi dama la koy ñaan nga bàyyi ma ma jël sa numéro bi def ko ci baar écran bi képp ku soxla père Birahim loo xamante ne teraanga la buñ ko buñ ko war a jox duñ jaar ci ma Demba duñ jaar ci ma Paate ñu woo la joxal la ko loolu moom xanaa dig ma ko may waaw loolu amul benn problème. man kay ah. sama numéro. Ah. nëbbuwuma làquwuma amul dara parce li may def ne fàng laay def. dëgg kuy nëbb sa numéro ak di nëbboo ko laf yi. day fekk na booba pour a accès ci yow di freiner sa bopp. Hmm. ak man du ko def bu ma la comme ni ñuy tenté sa oto ni la xàmmee. wala jamais ci àddina. laay njaay maa ngi nuyu sama benn xarit bu ñuy wax nekk marché Kermel. Hmm. daf ma daan wax benn wax ne ma Birahim xam nga teraanga boo gisee sa xew kenn du fi xaj ñëpp wuy si hmm. da seexlawul kenn dëgg la wax na dëgg man du ma seexlu nit wallaahi njaay jamais ci àdduna xale dama koy jox cëram la mag dama koy jox cëram amul kenn koo xam ne kii di toog ne Birahim Ndiaye dépassé na ma wala axu njaaw damay damaa ragal sax nit wan ma ginnaaw mooy wax lu ñaaw ci moom wala ma xamal ko secret di ko wax ma la may wax lu ñaaw ci moom ëllëg si muy bàkkaar bu ma gàtt du ma ko def wallaahi kon loolu du dara tool képp ko laaj sama numéro jox ko yéen ñëpp muy Bachir muy Ka ku ci am soxla ne père Birame laa soxla jox ko numéro bi. ndeysaan daf may woo daf may sant wala mu digëral ma rek. dëgg la wala boobaa bu ma laajee lu ma mën lu ma xam ma wax lu ma xamul ne xaw ma. dëgg la boo ma santee lu ma mën def ma def lu ma mën ne la mënu ma. dëgg la loolu yomb na. jërëjëf Ndiaye. ah kontaan naa ci loolu bu baax a baax a baax. Hmm. per keroog danga nekkoon ci làmb ji. Ah. Euh, nga gis stade bi nu mu mel. Ah. ñu tëgg bi mooy deuxième fois yaakaar naa sampion bu mag. jóge Pikine di bëre booy ñaa ah. bëri na fa. Mm-hmm. gis nga stade bi nu mu meloon ak mm-hmm. mbooloo. Mm-hmm. moog la daguerre Eumeu Sène bëriwaat na fa ak la daguerre. gis nga mbooloo mi stade bi mel. combat Modou Lo ak Ama Balde noo gisee stade bi ci liggéey bi. waaw stade bi démb keroog bi ma gisee maa ngi koy wax Malick sax ma ne ko stade bi de xaw ma Gaston fu mu nekk waaye xolam neex na. Mm. parce que organiser ñëpp wuy si la làmb ji fees ba fees boo xam ne mosu ko fees mhm. loolu ku ko organiser rek am nga lu neex mhm. sa xol neex na mhm. parce que gars du làmb ji dafa fees ba amul pour amul ruq kon loolu ku bëgg loolu neex lu neex ci xolu organisateur la muy benn ñaareel ba euh, li nga xam ne làmb ji euh, indi na ko ci mbër yi dañoo namoon bëri dëgg la boo gisee xale yi keroog ni seen xol neexee nga xam ne lii animation beeg tëgg meeg way beeg fecceeg animation bi namoon nañ loolu. Mhm. parce que loolu dafa bokk ci dundu doomu aadama ci ñi bëgg làmb. Mhm. loolu tam ñu si loolu yi neex na fa waaye eh, ni ma gisee làmb ji ni ma gisee keroog nii am na combat xam ne bu ñu ko tëggee xajul foofu. ah waaw wala ñu bari keroog duñ ko seetaan bokk wala ñu seetaane ko ci leneen. muy combat xanaa mu fees ñu tëj ko. Modou Lo Ama Baldé. Mhm. sama yaakaaru bopp laa wax de suñ ko tëggee làmb foofu place boobu. sécurité bi dina doy lépp dina doy mais ñëpp dañ dul xaj xanaa koy génn ci biti dem seetaani ko ci télé wala seetaani ko ci leneen loolu rek la doon waaye combat la boo xam ne bii hmm. que combat boo xam ne bii kii dafa yor couronne bi kii bëgg koo jël. Hmm. te ci garab ci kaw lay fekkante. Hmm. dégg nga Ama Baldé it gis nga bonne voie bi mu jaar. tubaar kàlla xam nga ne mu ngi ci yaan bu baax. dégg nga Modou Lo tamit kenn bu ko nattal gis nga fi mu jaar. ba téye couronne bi. guddoo réew ba pare tëj couronne bi. xam nga kooku ndaanaan Uh-huh. waaye xale bee tamit boo gisee yoon wi mu jaar nga xam ne mu ngi ñëw. Hmm. ko combat bu mel noonu ñu ko séentoo ab soir kàlla waaw. Hmm. lenn rek laa ci am de soir mooy combat bii tamit war neex na neex boo xam ne ak làmb ji ni mu tëj woon ubbi ñu fexe ba Matar ba ñu ngi koy gërëm de passage. Hmm. Matar fexe ba làmb ji ak Covid bi ni mu dem yëpp delloosi na làmb ba làmb delloosi waat. Hmm. place am ba ñëpp commencé tëgg ñëpp commencé bëgg combat bi warul woon a demee nii. parce que làmb jooju moom du nekk làmb joo xamante ni mën nañ ci sax daanaka di xuus parce que lépp ñu ci wax la mooy ñu ngi leetoo ñoom ñaar. waaw cokkaas na mu ngi leetoo rek. maanaam bëri xew fa dara xew fa. Ah, bëri kay buñ newoon tey jii nga romb ma ma taxaw ak yow jàkkaar ji nga taxaw ma taxaw mais Bachirou Mele mënu romb ne ñoom romb naa Bilaay di bëri ak kii di bëri xaar euh, Abdou Xaar. Uh-huh. yaa ngi taxaw maa ngi taxaw ñu soo kaas léewtu bëri waaye bu ñu songoo téye nga uh-huh. téye ma téye uh-huh. est-ce moom bu demee lu muy wax bu la mu gisee romb naa la ñuy bëri ñuy bëri ah, mais bëri amu jàppante nañ ñoom ñaar bëri fa bëri amu fa bëri amu fa mm. moom kay nañu waxat dëgg rek bu dëgg dee am nga mm. xam ne buñ ba ñu kuñ ci mere ba ñu ko waaye bëri li tax ñu wax bëri daal amu fa mm. la ñëpp seetaanoon nag yaakaaroon ne mooy am ca làmb ja amu ca làmb ja déception bu am na ci nañu fexe ba nag li ma leen di wax nag seen bàyyi mbëree waxtaan ak yéen te man yéen ñëpp laa yéene jàmm yéen samay doom ngeen amu ci kenn koo xam ne yéene naa lu bon su ma la ko yéene yàlla na këpp sama njaboot ñëpp nag muy moom muy Balla Gaye muy Eumeu seen muy muy Lac de mhm. jàmm rek laa leen yéene parce que làmb la dama ko defoon bàyyi keneen def ko bàyyi ñoom it seen temps dina ma sa ñëw ma dina ñaan a gudd fan ak wér seen ñeneen ñëw dëgg la waaw kon la ci am des mooy ñi ci des nañ ko rafetal. Mhm. comme làmb ji ubbi na daal ñu ngi koy doxal ku ci ñëwati jël avance na ko def sa àq. Mhm. na jox làmb àqam. Mhm. su ko defee la nga ci am day lew. mais làmb nag attention de boo ko joxul àqam lañ la jox nga ëmb bu yóbbu rek dem te joxoo ko àqam la nga yam mën naa bañ a barkeel. te bëri bëri na metti goo xam ne gii kenn ku nekk la nga am war naa mën a barkeel. waaw mu mel ni amateurs yi keroog ñu baree bari euh, mën nañ ni Diène Kaïré ak Modou Anta ñoo sauvé bis bi mais seen xol seddul. kontaan waaw boobu de moom pourtant wax naa ko Malick ma ne ko Malick combat bii de toujours combat bu mag ak bu ndaw combat bu mag ba mooy annoncé bu ndaw mooy annoncé bu mag bi. dëgg la parce que combat bi bu neexee rek ñaar plupart day ñaax ñaari mbëri ci war a topp. Mm-hmm. dañuy ñëw ne ah mais xale yi di bëri bi ñu bëri ñun waruñoo décevoir loolu la ku nekk waroon a xeex bu bariwul mais sonko nañu bëri kii def la mu mën kële contre ko yëg ko dax ko mu daw daanu. Hmm. waaw parce la mu bëri moom it heure bu rëy la bëri. Hmm. waaw mbër moom féete ndaw nga daal tëb tëb salaamaaleykum rek nga ne ko neex téye. Hmm. waaw mu téye nga téye mayoo temps bëri bi déplacé woo gisoo wubbi woo buntu sax jéem a seet fooy jaar loolu tamit eh, buñ la jàppee rek mu fiir ku jàpp jinax ndeysaan loolu mooy fiir bu jàpp jinax bu jàpp jinax du rëcc mukk waaw loolu moo tax ba mu ko roofee kas ko ci gari ci pied ak pied roof ko ci xabal bi daw yëg ko waru woon laal tànk bi ci kanam tànk ba ci ginnaaw lay rek puus tànk bi mu génn ndeysaan waaw waaye dafa taf tànk ba ca morom ma bu ko waaji wéeroo day dem ndeysaan te bu ñu paree naa la ko woon waaw loolu dañuy ñëw ci wax la ko tànk boo laalee benn bu ñu jàppee bi bu taf bi ci morom bi da ngay da nga àndale ba ca kanaaw ngay ràndale hmm. indi beneen bi dañuy ñëw ci écran bi léegi xam naa dañ ñëw léegi euh, sëñ Basirou dafa mel ni tey dafa war a <laughs> nee na am na message boo xam ni dafa ko bëgg a lancé xam naa ni ci jàpp na ni ci man ak yow daal la ko bëgg a lancé daal ci ci ñun lay dawee def porox dollam. waaw ba bëgg sànni li bëgg a sànni waale. ba tey loolu tamit <laughs> ñu nangul lañ ko ko. <laughs> parce que ku jiitee dara. da am loo ko jiitee. dëgg la ndeysaan. sëñ Basiirou toogal nga dénk ko benn responsabilité rek. nga jiite ko rek am na noo ko war a jiitoo. ah, ah bëgg a taxaw. waaw ah. parce que ah. tamit euh, Basiir. la ca baax war nga koy wax. mais la ca sooxe war nga koy wax. dëgg la loolu mooy tax nga mën a gérer li ñu la jox. dëgg la. waaw loolu mooy àddina ko hmm. maa ngi jégalu bu baax nag. waaw waaw dagg gi dagg xam naa bépp mbokk internet yi sax bu leen neex. Hmm. bu ñu père commencé rek. Hmm. dañuy bëgg mu waxtaan ba daaneel ndax lépp njariñ la. mais dafa am loo xam ne mënul ñàkk. Mm. ndax euh, bu ma juumul ay weer yu baree ngi nii. Mm. ba nga fi tàmbalee ba léegi. Mm. émission yi bu ñëw rek. gën a am njariñ. bu ñëw rek gën a am solo. te aussi gis nañu ci côté audience yi. ñuy suivre Père Birahim de temps en bu ñu ko gëjee gis sax dañu koy laaj. loolu moom mooy wane ne amal na njariñ boîte bi. mais aussi nit ñi fa ñu nekk. bu sori lool. ñu bëgg di ko gis amuñu benn plateforme bu ñu koy gisee. Euh, occasion la ñu koy gis ci wasaare muy def ay jàngat yu am solo mm-hmm. mbër yi aussi di ci jàngat lu bare bare mm-hmm. bare bëri mm-hmm. ndax am na ci ñoo xam ne nii ay ponkal lañ mais dañ làqatu seetaan Père Birahim xool jàngat bi mu def ci benn combat ñu moytu lool bu fekkee ne lu leen di lor la wala ñu yokk ko bu fekkee lu leen di jariñ la loolu nag du ñu ci xaar internet yi ñun waa wasaare di ko dale ci kilifa gi baabu ba ci ñi fi nekk ñëpp ba ñii di filmer muy aadama di kàbbu. ba ci jiili mi gën a ndaw rek. waaw ba ci jiili mi ci gën a ndaw. <laughs> dafa am loo xamante nii bu nekkee mbégte ci ñun rek faaw ñu fësal ko. Mm-hmm, mm-hmm. faaw ñu fësal ko ba internet yëpp gis ko. Mm-hmm. mais aussi yoon la boo xamante ni dañu koy ubbi. pour nit ñi xam ne per Père Birahim. Père Birahim Sénégal la Père Birahim mu làmb la. du Père Birahim mu parcelle. du Père mu eh, écrit euh, sàkku xam-xam. du Père mu. Euh, wasaare les pères Birahim Sénégal gépp mm-hmm. Mm-hmm. parce que gis nañ ITV li ñu def lu am solo li mm-hmm. gis nañ ne kii borom xam-xam la war nañu ko woo mu jë euh, saafuwanteeg nit ñi waxtaan ak ñoom mais aussi mu présenté li nga xamante nii man-manam la ndax nit ki boo ko woowee ci li mu mën dama naan sa jaan wàcc nag loolu moo tax nag ñun ñu bëgg a def geste bu ndaw rek geste bu ndaw bi mooy émission bi nga xam ne mooy jàngat làmb wasaare da leen fa fas yéene yow ak euh, Baye Djili. muy mbir moo xam nag lu ñu mm. xeeb la. Mm, franchement lu ñu xeeb la. Mm-hmm. mais dafa nekk contribution boo xam ne nii rek. Mm. dañ koy fësalee suñu mbégte. ak euh, yaakaar gi nga xam ne nii am nañ ko ci émission bi. Mm-hmm. ak euh, li nga xam ne mu ngi koy commencé am depuis mu commencé ba léegi nag. Mm-hmm. dakkul benn yoon. chaque jour mu ngi gën di rafet. chaque jour mu ngi gën a baax. moo tax kàggu da may jot li mbuus moomu. am naa tey <laughs> mën ngaa cadré rek. tey jii laa fas yéene. allah. macha allah. ah Ndiaye walaay Ndiaye. jaajëf waay Ndiaye. waaw. bi rëy na. yàlla ci roppalaan topp ak oto. amiin amiin naa nga oto de barki yonent bi ah. da baax paay. waay bilaay Ndiaye. Ah. macha allah. Adama Ba yaa ngi may jël. Ah, macha allah waaw jaajëf te te te sama couleur sax nga tànn. ah, ah couleur bleu bi. ah, ah yow da ngaa da ngaa nga xam sama couleur. ndeysaan walaay jaay ah lii de moom. taarkal la waaw taarkal. daal mën na di dem xew. macha allah moom kii kay émission bu rëy laa ci war a def sax. ndeysaan kii moom. émission bu rëy rëy laa ci def. ndeysaan waaw waaye borom dëgg la. ak dàll yi. jërëjëf. ah Ndiaye sama bas ñëw na de. waaw laay sa doom. ah waaw deux mu lay cokkaat. waaw ñaar ci ñu def rek mu xaw a niiroo la. waaw waaw daal kooba lañ koy. daal daal kooba. <laughs> ah macha allah man lii ah kontaan naa nag. wallaay kontaan naa. jërëjëf. Hmm? Eh, lii kontaan naa la ndeysaan ah Ndiaye. lii kontaan naa la sama xol sedd na. waaw Ndiaye sama xol sedd na. kontaan nañu. Eh, eh, macha allah. ñu ah, daal père moo nekkoon li jërëjëf jërëjëf jërëjëf. tàmbali la rek. dëgg jërëjëf Ndiaye tàmbali boo xamante dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaw loolee mën naa ñëw. waaw lu ñu daal ñaan ndeysaan ndeysaan may jégaluwaat bu baax nag ci dagg gi ma dagg waaw nañu bañ a rek damay génnaat rek bàyyi leen ngeen ngeen continuer d'accord ah, jërëjëf jërëjëf sëñ Basirou ah sëñ Basirou ah Père Birahim loo ah. gisee teraanga yi waaw xam nga ah, asgor ndeysaan ku ko teral rek rey nga ko ko teral teral nga ko dëgg la waaw te lii mu ñu defal nii Euh, man teraanga ji fa mu njëkk sax. ndeysaan tey lii da cee topp rek. dëgg la mais keroog ba ngeen jëkkee ñëw sama kër indi ceeb indi diwlin. indi saabu indi suukar indi café meew. chocolat euh, lépp. leen di ci bari yëkkati xaalis teg ci. booba rek mooy teraanga benn internet mosuma ko defal. dëgg la ndeysaan. te rajo bu ne toog naa fa télévision ne bu ne toog naa fa. te yëpp kenn teraanga boobu ngeen ma defal sama benn kër kenn mosuma ko defal. ndeysaan loolu rek doyoon na. bu ngeen demee nag ba àddina dox lii li indi lii mooy indi leneen. ndeysaan lii. Hmm. man kay damay ñaan ci yàlla billaahi wallaahi tallaahi ñetti gi ñi gën a fola ah. damay julli ba pare jàng sama sotti jàng samay sotti mu ci ñaan ci borom ah. naan wasaare yàlla na raw ci monde bi ndeysaan amiin dama koy ñaan ci sama xol parce que lan la parce ah. man nit laa koo xam ne kii bëgguma jiit jax yëngu ci dara muy sooxe dëgg la Basiir ngi nii toog ma jox taraange du bàyyi ma fenn léeg ma toog mu ñëw mu dugg fi ma toog ne monsieur suñu liggéey nu mu dem suñu liggéey baa mu ngi dox mu ne ah ça kaa loolu de neex na ma mhm. parce que man bëgguma dara da ci am sama ñaq weer wu dee ngeen jox ma dara ba pare encore affaire bay sooxee mhm. dama ko daan laaj moom mii ndax nu mu dem mu ne mhm. mu ngi a sa encouragé na la loolu boobu joxul dara sa encouragé nga ma kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi site bi yàlla na ko yàlla yóbbu ca kanam a kanam a yàlla na nekk ni mu new number one ci monde bi la xam waaw te kontaan naa ci yéen ñëpp. parce que li ma gën a gis mooy. Mm. ay xale yu yaru laa fekk xale yu tegg laa fekk. et puis ñëpp de nekk nit ak doomu baajanam. tooñante bi draayante bi kafre. Mm. mosuma fi dégg moo bu ñaaw. mosuma fi dégg xulo. mosuma fi dégg ay caaxaan. mosuma fi dégg dara loo xam ne nii dama leen koy xeebe wala ngeen ne ngeen gis ko ci muy jigéen ñi muy góor ñi nag. loolu doy na. Mm-hmm. loolu ko am kay man kay ñaanal leen rek yàlla na ngeen affaire bi na gën a dem rek yàlla na mm-hmm. gën a dund ba ngeen di téeméeraat ba yéen doom sax ñëw ne ñoo yoroon site bi. na ko mm-hmm. a la ñuy sol. waaw ah. ndeysaan ma ah, sol sa bos ma sol. waaw yow nga bula ma bula est-ce que nag loolu tamit. affaire dinaa bële changé yeneen <laughs> yoon nga bule ma solo ah, ah, affaire ah, waaye déet noonu kay kay damay bàyyi ba boo soloo rek saa yi may yi <laughs> ma gisee peer la sol bulam rek ma sol sama bula waaye ànd def émission bu rafet kontaan trop vraiment jërëjëf Ndiaye loolu daal mooy sama mbégte laay euh, yéen ñëpp comme nit ak doomu bàjjanam kaf yeddrate rek loolu nag liggéey moo koy doxal du tekki nag ne ba tey gis na loolu sooxe liggéey bi. dëgg la ñu wax ñu ko. ñu wax ko dëgg la nii defar leen ko. du ah. question dara waaye boo jiitee dara. dëgg la dégg nga tamit am na ci loo xam ne li bu sooxee nga daa déet nañ leen moytu lii. nañ leen defee nii mu gën a baax. dëgg la ku ci am idée bu rafet di indi. mu gën a baax. dëgg la ku ci am loo xam ne xëy nga ne lii bu ñu ko defee yàq la ñu teel ko dindi. dëgg la muy man mii seen papa muy ñëpp nag. dëgg la waaw loolu daal laa lay sant di leen gërëm rek. a ah. ngeen jëf jërëjëf jërëjëf eh, bu baax di kontaan bu baax a baax a baax ci teraanga bi nga xamante ni eh, wasaare defal nañu ko eh, di leen ñaanal yàlla suñu boroom gën a mm. eh, guddal fan yi ndax wax dëgg père teraloon la rek doy na man jarul woon sax ma ciy bokk wala ah, ah, yow boo ci bokkul yaay mais père man buñ ma buñ la teralee rek teral dañ ma bi sànq dama la wax benn wax xam na xëy naa da ko desee dégg ah. dama ne boole bi ñu yàlla boole am na lu ma mënte yow mënoo ko dëgg la Njaay waaye am nga loo mënte mënuma ko dëgg la Njaay wallaay wallaay am na loo xam ne lii tey jii da defee ni ngay duggee biir stade ma mm. siiwur mm. nga taxaw ci buntu interview taxaw dem ci booyu mbër yi kenn ku ne nga interview ku ne nga attaque ko de loolu mën naa ko milliard bu ngeen ma ko doon fay mënuma ko dëgg la Njaay dootul sama âge mm-hmm. ah lamb bu tëqëj nga dem fu ne fu lamb nekk yaa nga fa mbër nekk yaa nga a euh, loolu kenn mënu laa la wax na nga ko dégg bu baax la ah, a la rek yaa ci bon waatuwaar ka xam na la seetaanee keroog mm-hmm. toog YouTube seetaan la mm-hmm. dama laa daal di woo ci tàngataay ndeysaan dëgg la ne la de uh-huh. interview bi nga duggee affaire bi yëpp neex na léeg-léeg nga sànni xeer Adama. dëgg la gaay yëpp di sànni xeer sa gaay yi loolu lépp. day émission bi rek. dëgg la waaw dëgg la ndeysaan. kontaan naa trop kontaan naa bu baax a baax a baax. jërëjëf mbokk yi kon. ñuy jëfalaat bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni eh, ñooñu ñawal lii nga xam naa ne du ñàkk incha allahu rabbi dinañ ci jaar wax ko eh, wax téyeer bi ko ñaw mm-hmm. incha allahu rabbi eh, jaar fépp fépp di kontaan nag bu baax a baax a baax ci teraanga bi nga xamante ni rëy na ci ñun trop père ma lay jaajëfal di la tàgg ci tàggoo bi nga xamante ni moom la tàqali ko waaw jërëjëf rek yàlla nañ ko def ay at bu bari amiin yaa rabbal waaw yàlla nañ yàlla may wér mm-hmm. fekkee tal ak wér dëgg la yaa defal ñu jaamu yàlla ku ñu nangu. amiin yàlla def ñu tamit ñu dëgg dëgg jullit yàlla nañ ko yàlla def. amiin yaa rabbi waaw nuyu ñoom Famara ñi nga xam ne ñu nga Belgique kaw ma Belgique Famara te lay laajte tout le temps. ndeysaan Famara ñoom Biram Ndaw Ndoy sunu gars yooyu yëpp. Biram tey di ñu bëggee. tey xam naa ne bu ñu gisee ne taranga ji la ñu wasaare defaree. wallaahi wallaahi dinañu gën kontaan lool. wallaahi xam naa yàlla tey jii sama gars yi nekk seetaan Wassare yëpp yi nekk France ak ñoom Issa Diène dégg nga ñoom kii Dame Si Dame Si dégg nga ñoom Madiara ah. dégg nga ak ñoom xawsu ñoom yëpp tey dem nañ ma wax ne yow la ñuy seetaan ah. xam nga ñooñu bu gisee tey Wassare defal la teraanga bii vraiment tey lu rëy ngeen ma defal lu rëy loo xam ne lii yàlla mi am fay daal yàlla na yàlla fay daal ah. waaw jërëjëf teraanga bi nag xam naa ne su ma mënoon dagg ci bu nekk fu waay nekk nekk soppe baay jiili rawatina wasaare dinaa ko mën a dagg ku ci nekk mooy yóbbante la ko foo mën a nekk ndax kontaan naa bu baax yéen a tax ñuy gën di am fit yéen a tax ñuy gën di am kàttan yéen a tax ñuy gën a kii ñuy ñaanalaat rek waajur yi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale saa su ne. Mm-hmm. Eh, yàlla suñu borom bàyyi leen fi ñu am gudd fan ak ah, wér. amiin bépp naal boo xamante ni séntu nañ ko ci njaboot gi yàlla suñu borom defal leen ci lu kawe seen njort. Mm-hmm. Eh, di jaajëfalaat bu baax encore une fois. Mm-hmm. sama xarit yi ku ci mel ni Babacar borom Espagne Pape Gueye. Eh, maam Cheikh. sama grand Fallou Ndiaye mi nga xamante ne vraiment saa su ne du jug ci di ma conseiller di waxtaan man Balla Kebe suma mag baay mbay Kebe di siyaar ñëpp la famille Ahmed Boutique waa koñ ba ñëpp maa ngi koy teg seen loxo vraiment di leen wax teraanga gi rëy na ci man trop di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ndeysaan waaw euh, sëñ Bas nee mooy may nuyuwaale ki ko ko ñawal di bàyyi Baye Sall Thiam euh, Saliou Thiam nag Euh, mu nga mu nga nekk fële ca Cité Fadia moom ak Baye Lahat Kandji ña nga fa di ñaw ñaw bu am solo incha allah rabbi tubaab Belel Couture incha allah rabbi numéro bi dina jaar noonu ci écritel bi. ngeen gis ko moom moo génn fii ci ñaw yu rafet yi macha allah dàll yi nag ki ñu ko ki ñu ko ki ñu ko xéwalee di suñu xarit. suñu doomu ndey di MK Chaussure MK Chaussure nag moom ma nga nekk parcelle Parcelles Assainies euh, tali bu bees moom it moo génn ci dàll yi vraiment ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di leen ñaanal rek euh, gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ni séntu ngeen ko ci peer. Mm-hmm. wala yéene ngeen ko peer yàlla suñu borom kàttanal leen dooleel leen ko ba ngeen defee ko ni ngeen ko bëggee ñu ànd ceeg moom di leen jaajëfal ci tàggoo bi nga xamante ni moo mm-hmm. dul tàqali ko. ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf. ndaanaan laa ñaari yoon kon boo booba laa mëne foo jaar fafa laa mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yeley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor si